الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم وصلى الله وسلم على أشرف المرسلين محمد بن عبد الله سيد الأولين والآخرين وعلى آله وصحابته gannaaw buñ sante yàlla jullit yonent bi sallallahu alayhi wa sallam ñu ngi nuyu mbooloo mi di leen wax asalaamualeykum wa rahmatullahi taala wa di sant yàlla ci yàlla mi ñu may jot ak wér bañ fekkee ak takkusaan yi nga xam ne daaw lañ ko sosoon takkusaan moom xalima santee ko yàlla di gërëm nag ñi nga xam ne ñoo ko sos di leen ndokkeel itam gannaaw buñ ndokkeelee suñ bopp ndax ki ñu ko defal ñun xamuñ ko la Uwaysul Qarani waxoon ci si nawba dina Omar yonent bi sallallahu alayhi wasallam daf ne ko da ngeen dajeeg suñu wax Uwaysul Qarani su ñooñ asamaan xam te ñoom suuf réeree ko bu ngeen dajeeg moom sàkku leen ci moom ñaan na leen ñaanal jamono di dox nag baax si ji xilaafa si Omar fekk yonent bi sallallahu waxoon na leen ne sàmmkatam gileem lay doon bu baaxoon nag ci ndeyam la mandarga yi leen wax yëpp ñu dajeeg moom saxaaba yi ñëw ne si naawar que yonent bi doon junj day dafa mel ni moo nekk fële ah si na Omar daal di ñëw nuyu ko ne ko nag ñun yonente bi waxoon nañ ne buñ dajeeg yow nañ sàpp ci yow ñaan xam nga nit ak yàlla moom day wàcce boppam mu ne man ah déedéet du man la leen wax man de sàmmkat ak gileem laa dalal si na Omar ne ko yow mënoo ñëw yonent bi wax nañu say mbir mu ne leen yonent ban ñu ne ko Muhammad ibnu Abdillahi rasulillahi sallallahu alayhi wa sallam mu ne kooku xam ngeen ko dinaa war ne ko ah ñoo moom a dëkkoon mu ne leen déedéet xamu leen ko Sina Omar ne ko doonte ko noon doomi abi saxaafa ji la mooy Sina Babacar xam nga Sina Babacar Abdoulaye la tudd waaye Aboubacar ji mooy bàyyi jànq ba ndax doomam moom rek la yonent bi sallallahu alayhi wa sallam jël muy Ndey ci njàng moo tax nga Aboubacar bàyyi jànqam waaye Abdoulaye ibn Abi Quhaafa la tudd mu ne leen doonte konoon Seydina Babacar la yéen xamu ko takk ndeeram ngeen gis ndax baati ni yonent bi sallallahu alayhi wa sallam la xam kon ñun itam ah, bu ñëwoon ne takk ndeeram xalifatul haaji Muhammad lañ gis waaye xamuñ baati na loolu nag moom la soog mu nëbbu nit ñi ndax dafa bañ ñu def ko comme yàlla di ko jàmm damay wax ne doy na la mu muqaddam yi nga xam ne ñoo jàppoon ci moom kawteef yi mu def ci ñoom doy na la pirnde sëti Cheikh Seydina Cheikh yi nga xam ne defuñ ko woon taalibe bàyyi lañ ko defoon ndax ku demee ni Mouhamadul Hadi bu ñëwaan Saalum booba maam Abdoul Aziz Sy Dabakh moom la daan àndal ñu wër Saalum muy wër taalibey maamam yi muy Seydina Cheikh dana def semaine wala ñaari semaine ci àll bi fu muy mujjee mooy ñaseen ci maam xalifa bu ñëwee naan ko fan yi yëpp nag ak semaine yi yëpp maa ngi woon ci sama taalibey maam yi waaye tey nag sama kër bàyyi laa ñëw muy xalifatul xaaj bi muhammad ndax yow gis nga suñ maam dajeeg moom ca Casablanca ba mu demee Fass muy daarul bayda ba kooka liggéeyal daal maam xalifa jox ay mbóot xamal ko ismulaay laazam sama maam xalifa delsi bokk na ci lim bind ci saadata wal wilaayata tuqaa maqrunatun bi ijaazatil mahmud di mahmud boobu moo moo meññ ñoom Mouhamadul Habib bi chérif bi nekk Ndakaaru te tey ki toog ci xilaafaam bi di Abdul Muttalib gannaaw Zeynul Abidin ànd nañ fa ak Baye Alaaji Omar ak Baye Alaaji Babacar yal na yàlla dolli seen leer ziyaare gi ko indil ko addiye moom Zeynul Abidin gannaaw bu baayam Mouhamadul Habib génne àddina mu berndeel leen maa nga woon ca yoon wa ak waa Kucce yi indil ñu attaaya bañ paree nag mu ñaanal ñu mu waxtaan ak mu ne yoonu Tijaan dey duggee nañ ko bunt bu ne am na ñoo xam ne ci ndono lañ ko jëlee am ñoo xam ne dañoo gëstu ci téere yi ba gis sëy na cheikh mu doy leen ñu jël wérdu tijaan waaye xalifatul haaji muhammad moom dong moo ko duggee buntab cofeel ba jeex tàkk ci seydina cheikh ba yéen mujj na cheikh maqaamu bu mu yéeg bu ko wàccee xalifatul haaji muhammad moo cay yéeg su wax loolu wàllu ndeyam ak wàllu baayam yépp Seydina Cheikh mooy seen maam mu ne xalifatul xaaji Mouhamad nekk naa ak yéen ngeen foog ne mooy wax fekk Seydina Cheikh moo def te jël lii ci làmmiñam di wax ngeen foog ne xalifaay wax fekk Seydina Cheikh mooy wax ak yéen kooku sëtu Seydina Cheikh moo ko wax njaboot ak xalifa Ñas te bàyyi laay doon war a ngi toog bàyyi laay war mu ne ah man de sama bàyyi na kii moom gànnaar la dëkk mu di ko bàttalee boppam ndax buy génn dina bu bu ko fekkee gànnaar nag waaye sama maam yi tam leeralu ko ci dara mu génn àddina ndeke moom eh, Mouhamad Abdourahmane ñëw na ci réew mi ba dem ci àll bi di laaj àddi fa la ko tàggee bi fekk te boobu xam nga waruwaay yomb ba muy ñëwaat fekk nañu jullee ko ba teg ko ci buntu bàmmeel bi ma Mouhamad Abdourahman ne dër daal di dugg ci biir bàmmeel bi taxaw ne alxajar alxajar ñu ne kii lu muy mu ne doj wa doj wa doj wa balaa ñu wax ne ah wax wax na dëgg sama baay bi mu koy bàttali sama la ñu ne fu doj wa nekk ñu ne mën ci yàppaat ñañ ñu jëli doj wa laxas ko ci malaan mu weex di ko waaye cooma laalu ko nag sëriñ seet borom xam-xam yi ñoo ko jottaliante waaye bu téye dog doj wa da wax sa turki riidi riidi ko ci sa biir bi door a jàllale ba mu agsi Mouhamad Abdourahmane jël ko def doj bi ci biir moom lañ jege nawelee sama maam Xalifa loolu doo gis ku ko am doj wañ njëg njëge naawee woon Cheikh ñu njëge naawee la ko Xalifatul Haaji Muhammad fii ci kaw la nga jàll ci Mouhamadul Arabi Damraawi borom kaaw teef loon kooku rek mën na waxtaanam mën naa jël jataay bi nga jàll ci Aliou Harazimi Harazimi dafa jógee dem Tuunus seeti Ibrahima Rayaahi yi moom itam ci kàngaami cheikh yi la bokk mu ak moom xéem ko kooku daal di daw wër dëkk bi yëpp kuy borom xam-xam mu ne am naa benn gan ngoo xam ne diggante penkook sow gisuma moom ci xam-xam ñépp ñëw ñu ñëw néeg bi ko bàyyi woon fekk ko fa mu ne ah gan bii moo gaaw tàng ku ne cëpp sargalo buñ la nga génn di waram réew mu ne ah kii de laa ko baawoon waaye fekk ma ko fi gunge ñële dem mu del si fekk ko ci néeg bi mu ne ko ah yow foo nekk mu ne ko mosuma génn néeg bi bi ngay ñëw dafa ma tey ismulaay laazam boobaa jëmm ji day dem ruuxu gis loolu tax gis ruuxu kooku ci kàngami cheikh yi la bokk cheikh jox na ko tur boo xam ne daf ne ko kii bu ko sikkar te toogoo ca raw du yonent bi sallallahu alayhi muy aj Makka ñëw ba tolloog Badar am kashfu fi mu toog mi ngi janoog raw du yonent bi sallallahu alayhi wa mu foog ne agsi na Madinatul Munawwar te diggante bi dese na ko ay kilomètre mu yëngal tur wi leer gi gànd ko mu ne mes ñu yëngal yëngal yëngatu ñu wëlbati sotti ndox def lu nekk mu ne yere ñu ne kii moom dee na loolu boobu ci jamonoy seex la ñu gas ba mu xóot ko gas ba mu xóot ñu na seex fa mu toll ca faas la toog ak saxaaba yi daal di nu saaxi bi xayyan sama af na doom bi day nañ ko fekk mi ngi dee mi ngi dund deewul ñu ne dund na ñetti fan ci bàmmeel door a dee ne une semaine Aliou Tamasini moom Tamasina la doon jógee ci Algérie def juróomi téeméeri kilomètre ñëw ziar ci Seydina Cheikh mu mos a ziarati nag indi tàndarma jox ko njabootam cheikh gi ñu di ko xëccoo leen neex bu neex mu bëgg ci nag ba benn bés mu ngi ziare si ak ci tàndarma gi yàkkamtee ak si pour jox ko waa kër sëriñam daal di joxañ cëb bi tàndarma yi ne ne dem leen fekki sama sëriñ fi cheikh toog rek ak taalibe yi tàndarma yi ne juree ci seen kaw ñu bëgg a daw lu lii lu lii Serigne Cheikh ne tamasini yu dof bii moo ko